internet Lac Rose TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo kenn ku ci nekk ci turam ak santam ñu ñëw ak yenn ci seen émission ganu Lac bi seen émission ganu Lac bi nag tey fas yéene dalal koo xamante ni euh, mën na nii ràññee nañu ko ci réew mi euh, par rapport ak li nga xamante ni moom lay liggéey surtout ci réseaux sociaux yi ak euh, ci média bi parce que sa su ne mi ngi yëkkati kàddoom di wax ngir lu jëmane réew mi kanam du ñu def lu dul bàyyi ko moom mu nuyoo présenté wu après ñu ñëw moom ci laaj bi nuyu nañ la. nuyu waa Lac Rose yëpp ak euh, li ko wër tous les huit di nuyu ñëpp di nuyu tamit waa Sénégal yëpp. Euh, ginnaaw nuyoo bi bu ñu ñëwoon tey ci sa parcours bu ñu bëggoon a xam kan mooy Badou ndaw lan nga ñuy wax. waaw <laughs> man nag te am parcours boo xam ni mi mi sax daf may reetaanloo quoi. parce que dara demeewul ni ma ko nima xalaté xalaate woon ne noonu lay demee donc euh, mais ci kattanu yàlla euh, maa ngi sant suñu borom ci lu wér bés bu nek ci fim ma jaarale yépp parce que man amoon nattable dal ci ci jang man pour man sama gaay yi sax nañ dan waxtaan bu mu melni ay kii mais ay liggéey man leen noo man étudiant éternel bon

maa ngi fexe jàng daal parce que lu ma bëgg xam rek dama koy jàng donc nag mës a nekk ci loolu ba bon tamit def sama liggéey aussi comme bërëbu jàngat parce que douane tamit corps la boo xam ni dafa xaw a spécial tey dañ lay affecté foo xam ni affaire jën rek moom lañ fay toppatoo il faut nga xam droit il faut nga xam droit bi nga xam ne moom mooy lijjanti jën yi il faut nga xam jën yi aussi yan jën dañuy téré yan jën la ki manam da ngay toujours comme presque ben faculté mhm. lay do mhm. bo jógee fofu ñu né bon yobul la Dakar pétrole nga dem ci pétrole bi fofu tamit bo fa démé benen droit la benen xam-xam la benen ki lool nak sax la gëna a sant suñu borom parce que dafa melni ni fi ma jaarale yépp

dañuy am impression ne lépp laa xam fekk na du lépp laa xam mais mën naa xam as tuuti lu bari mhm. voilà mhm. donc noonu laa def ba ñëw dugg en retraité fa bi ma fa jógee effectivement ma créé suma société ci laa nekk ba léegi def euh, prospective ak analyse di lijjanti xale yi seen ay monter leen ay start-up ak ay ay kii yooyu dinañ si dellu si incha allah. Mhm. incha euh, bu ñu taxawee ci liggéeyu douane tuuti euh, est-ce que liggéey bi yomb na walla walla yombul. waaw lu yomb moom sax amul fenn. Mhm. mais nag douane euh, dafa nekk corps boo xam ni maanaam li fa dajaloo dafa dafa bari daal. Mhm. parce que boo xoolee douanier yi. Euh, di di ki ci grade bi gën a tuuti ba grade bi gën a kowe fu ñu ciy jël ci ñoom rek les meilleurs la ñuy jël bu ñu ne tey dañ soxla préposé nga xam ni mooy grade bi mujj ci duwaan boo ko xoolee ñu ne armée la ak CEP ñi fay ñëw duwaan du ñu indi loolu du ñu indi CEP ak ak armée rek ngay gis ñi ñi ci gën a bari li ci gën a bari nga gis ku indi bac da ngay gis sax léegi sax xale yi da ngay gis ñuy indi ay maîtrise ak ay lu nekk donc les meilleurs ñoom ñooy jàll pour dem douane. Mhm. ci ci ci ci grade yëpp boo demee ANAM aussi dañ la naan ñi nga xam ne ñoo jël pay foofu douane ñoo ñoo jël pay ci examen yi douane lañuy euh, choisir wala dara seen premier choix douane lay doon. Mhm. donc mu nekk donc un corps boo xam ni corps intellectuel la ay corps boo xam ni ñi fay nekk généralement boo xoolee pourcentage bi gën a rëy daal ay nit ñoo xam ni am nañu as njàng wala am ak euh, lenn daal bon léegi nag ñoo ñëpp bu ñu tasee après nga xool ne personnel bi généralement personnel bu baax la bon nga ñëw nag ci biir liggéey bi mu nekk liggéey boo xam ni euh, dafa bari ay tentation mm-hmm. waaw parce que boo xoolee nit ñi ci seen xalaat par rapport bu fekkee ni bu njëkk ba la woon dañ daan wax ni douanier dañu araam mm-hmm. xam nga man mii sama yaay. Mhm. bu ñuy wax daan wax affaire douane moom mosul tudd douane. Mhm. foofu nga nekk foofu nga lii du tudd tur bi. Mhm. <laughs> bon mais ñu ñëw ci mentalité yi di dem ba ci yàgg douanier yi ñuy kii mais nag ci biir loolu ñu gis ñu ne bon douanier yi day dañu am xaalis. xam nga lu tax ñu am xaalis ni ñu naan bon boo wàccee boo defee nii et de

am noo mel man nekk naa douane wax dëgg fa yàlla bon euh, dama daan wax ci douane dem liggéey ji leneen parce que man ba système mu ay na système yoo xam ni xam naa ni man mënuma ci bokk d'ailleurs maa ngi koy wax ci sama livre bi sax ci lu bari parce que am yoo xam ni bon mënuma ci bokk sa ci sama tempérament mhm. que man ger dafa nekk loo xam ni même bi ma nekkee xale boo ma nee badu kaay ma yónni la damay ñëw taxaw foo ma yónni baax la du ma la wax fan foo ma mënti yónni ma dem dama koy dox ba mu normal mais ba mu ne ma may la juróomi man da demuma mm-hmm. donc man guerre na ma gisee comme ay nit ñoo xam dañu am doole bëgg la euh, tuuti tuutil daal mm-hmm. te man dama respecté wu sama bopp pare respecté sama am na loo xam ne ci tenue man loolu ma gënoon a kiyal ma solee sama tenue dama koy jox gëddam ba mu normal mm-hmm. maanaam bu am na loo xam ne du ma nangu

Mm-hmm. yàlla mi ñu bi ñu joxe seen kër sax amuñu mm-hmm. Mm-hmm. am na leneen lu ñuy taxé aussi douane yi que ni euh, tey buñ la jàppee douane yi xamul baale. ba tey ñu bari man am naa ci benn douanier bu ma xam boo xam ni histoire am daf ma ëlëm ba léegi que ni ci histoire dafa am ku mu jàppoon nekk te kilifa la bon am nu mu ko defee kooku am yu mu ko def ba léegi mu taxali ko ak sagoom est-ce que yooyu itam mos na la dal ci ci ci métier bi. noo xam nga man euh, li may wax rek quoi c'est-à-dire euh, à partir du moment où yow yaa ngi liggéey man euh, mësuma ci sama liggéey man personnellement may xool ne kii kilifa la ñemewuma ko def lii te mu def naka su dul noonu kii baadoolo yooyu non loolu moom man c'est loolu man kenn mënuma ko kilo c'est-à-dire que koo mënti doon mhm. ak noo mënti mel bu ñu fenqalikoo ci liggéey bi rek te nga tooñ rek man toppatootuma yaay kan nga hmm. nag nga doon baadoolo bi ak koo mënti doon man noonu laa mos a mel donc pour dans ma carrière effectivement loolu gis naa ko ba tàyyi ay ay menace ay bon dëkk bi kenn du fi dugg man personnellement bi may yegg Bakel en 89 ñu affecté ma foofu am na benn dëkk bu ñu ne woon fii homme de tenue du fa dugg bon homme de tenue du fa dugg ba bés ma toog benn waaye ñëw ne ma chef kat tel dëkk ma nga fees dell dell dell dell ak malien malien yi ñun ñoo doon fraudeur yi nga xam ñoom ñoo mhm. xamoon maliens ñoo doon dugal ma cigarette bi ñooy dugal arme yi ñooy dugal lépp quoi ay vélo la ñuy yor nekk ay ay ay convoi ay vingt trente personnes am na douanier yoo xam ne sax ñemewu ñoon malien yi mhm. ma ne ko ah mu ne waaw ma ñëw di ko wax gars yi gars yi nu yi waaye yow lay wax ni foofu douanier du fa dugg man ne douanier du fa dugg voilà jóg la ñu dem gars grand yi ne ma boy ndaw dama nga toog yi foofu duñu fa dem bon ma dem xool affaire bi xool xool affaire bi xaw ma la may niru ma taal suma moto ànd ak waa ji ñu dem ba mu ma dëkk baa nga nële ma bàyyi moto bi ci dellu si bàyyi moto bi ci tali bi utiliser terrain bi ñëw ba tiim dëkk bi taxaw di ko xool effectivement mhm. mu fees dell ak fii gars yi nag miinoon nañ affaire boobu ba nga xam du ñëwaat ba foofu sax dootuñu lijjantee te kii mais euh, le lendemain ci fajar gi dama dellu si man jël sama benn euh, waajoo xam ni bon euh, foofu la doon nekk ak benn militaire xam nga ñëw toj dëkk bi mhm. <laughs> xam nga mhm. ñëw def ay pexe toj ko indi fa boucan boo xam ni gars yi daw kii yeeg yooyu et tout ñu jàpp fa lu bari après nag bi affaire boobu amee ci suba gi bon euh, armée ñëw jàppale ñu xam nga. Mhm. ñu génn fa effet keroog njëriñ ay soixante et quelques vélos ki lu nekk ci marché bi jàpp nañ ko foofu. Mhm. waa dëkk bi yëpp naan yii chef ndaw dina dee ñi naan kii au oh, Karaaf yi ku nekk di wax ak affaire mais man. te réew moo mhm. nelaw. parce que bon kii moo tey bi defee loolu une semaine xam nga dama dawal sama moto ba ci biir dëkk bi dugaat fa fekk fi paay mhm. ñu wax ak et je et tout ma jóge fa dem beneen village continue def sama tournée heure bu may defati aw ma wax ma xam chef de village mhm. <laughs> xam leen mhm. ñu ne ma sax yow bon fii loo fi def normal na parce que bon dëkk bee ci topp yëpp ay ndaw ko ndaa ñoo fi dëkkoon ca temps yu yàgg yàgg yàgg yi donc tu vois. Mhm, mhm. bon mu ngi noonu. Mhm. Eh, xam naa dañuy génn foofu parce que bu ñu fa taxawee mën nañ fa xuus lu baree baree bari parce que dafa fa nekk loo xam ni lu am solo la euh, am ay jamono ñu la doon dégg ci wàllu environnement nga doon xeex fii ci lac bi ñu jékki-jékki déggatuñu la euh, lan moo waral tekkaaral boobu. xam man je suis président d'un mouvement qui s'appelle Acte Action Civique mouvement que maa ko créé en 1995 maa ngi Khalid. xarit lépp loo dañ xool rek xalaat ne lii mën na développer wala mën na parce que Sicap baba fi ma màggee fiñ ko fiñ ko noonu defee maanaam foofu lañ ko commencé te lu mel noonu lañ daan def dañ daan défendre quartier bi

mën nañ organiser ay course mbaam ba mu sax fi ba nit ñi di ko fu nekk bi télé pas sur l'environnement, environnement xam nga bon alors dañu toog boo xoolee lac bi lac bi disparaître. Mhm. ndox yi ko rivière yiy jóge côté Bambilor yiy jóge feneen ak feneen ak yooyu yëpp doon ko indil ndox bu nawet bi jotee gars yi baare nañ ko jaay nañ suuf yi fële dagg nañu yoon yi kii moo sax da ngay dégg ñaan la ay ñaari nit dee nañ Bambilor ak ndox mi dugg na ci kër yeeg ay affaire parce que yoonu ndox yi doon indi doon jox lak bi ndox yooyu ndox yooyu ñëwatul. Mhm. bon bu dee beneen côté bi mu ngi noonu lak bi chaque jour mu gën a wàcc bon alors man dama ñëw comme je dis rek moo def ma yegg si ba fii fii bu mu fi ñëw xaw ma woon fuy waye mbaam Lac Rose ci boppam mus daan naa fi ñëw mais ñëw ma fi woon pour quoi que ce soit yàlla def nag ma doon monter benn projet ak sama benn xarit ba yàlla def ma mujj fi ñëw toog dëkk waaye mbaam mhm. bon bi nga xamee ni booy yi nga xam ne ñoom fii la ñu dëkk nga xam ne ñoom ñoo waroon lijjanti li nga xam ne moom mooy ëllëgu gox bi fii ñoo dem di wut ay camion suuf ak di ñëw di dindi suuf di dindi beeñ yeeg yooyu j'ai dit que ñii ils vont nous mettre en danger parce que mhm. lu ñuy mettre en danger moom mooy que boo xoolee dëkk bu mel ni mbéy dëkk yi wër Lac Rose yëpp jege mhm. ko mhm. boo dindee beñ bi nekk ci ginnaawam ci ay affaireu xaalis yoo xam ni xaalisu àdduna yi nga dindi ko bu ndox yooyu ñëwee fu mu jëm ci kër yi la jëm Mhm. yóbbu waaye mbaam yóbbu mbéy yóbbu yóbbaale kër si mbir lépp loo xam ne dafa dafa dafa jege lak bi te loolu am na fi man ma fekk ko mhm. jóge fële côté Bambilor lépp luy poulailler ak yooyu mu yóbbu ko keroog maa ngi taxaw nii di ko xool donc ma xoolee yooyu yëpp ma ne bon lii normalul mhm. commencé wax ak boy yi mais nit ñi seen intérêt rek la ñuy gis maanaam bon voilà kii kat dana ma may 1000 francs wala dana ma may 5000 wala dana ma may institut yooyu gisuñu li nga xam ne moo nekk ci ginnaaw bon ma def cartographie la cause def potentialité yi nga yi nga na fi am ba pare taxaw am na donc waru fi mën a am. Mhm. donc bi pour ne dañ koy def suuf président de la république indi fi presse bi nga xam Ali nga toujours ci donc indi leen fi te biñ ko fi président dañ ko indi tey samedi bi le mercredi le président jël jël jël jël décret contre euh, euh, euh, les carrières yi nga xam ne moo fi amoon bi amoon ci booru fële ak bi am bi amoon ci booru géej ga fële ne mhm. bon yi si des yi si des bon man dama naan que par exemple xam nga sénégalais bi dafa toll foo xam ni bon dafay vivre situation yu compliquée mhm. parce que man dama mënul comprendre que yow nga am ay autorité municipale ay maire ay kii yooyu et tout ñoom gisoo par exemple ci li nga xam ni moom mooy intérêt dëkk bi ëllëg. Mhm. nga xam ni xale yi fi juddoo tey war nañ fi fekk loo xam ni ëllëg comme ñun parce que responsabilité la ñi fi nekk nii tey. xëy dañ naan développement yeeg si wu fi mais suñu différence ak tubaab bi tubaab bi day organiser développement. Mhm. mag ñi fi nekk tey fi dafa am loo xam ne fekk nañ ko fi munuñ ne nag ne ñoom xëy na li ñu fi fekkoon noonu la ko nit ñi di jëfandikoo yooyu mais ñun ñi nga xam ne jël nañ responsabilité am ay njaboot ak yooyu war na leen fi bàyyi loo xam ne ñoom wax waxuma sax lu ñuy lu ñuy lu ñuy moom la mais dañ koy bokk ak ak mën ko bokk ak mhm. ñeneen te loolu bi ci la bokk. Mhm. beeñ ci ginnaaw ci la bokk ak yooyu. donc pour répondre question du ne dama toog rek bàyyi waxatuma ci. maa ngi ciy wax maa ngi ciy wax te association yi nekk ci ci affaire u lac bi ñoom bu ñu ma déggee dinañ xam ni maa ngi ciy wax. Mhm. mais nag dafa di ne euh, nit ñi mënoo toog xam nga di leen ëppale ci loo xam ne ñoom ñoo ko moom. Mhm. jeunes ñàgg ñu waa ñàgg jeunes yeeg ndaw yeeg jigéen yeeg yëpp waa waye mbaam waa kër Simbiri waa Dén waa kër Mare Mbeng waa kër Bala ñooñu ñëpp. ñoo moom làkk bi. Mhm. donc jeunes yëpp seen préoccupation moo doon lan bu gouvernement di ñëw ne damay defar pôle urbain nga taxaw man damay dama koy bind président dama koy bind autorité yi ne leen boo leen fi ñëwee da ngeen fekk ay nit bu fekkee ni da ngeen bëgg def dara laaj leen nit ñi ñu wax leen nan lañ koy defee mais kooku day nekk on intérêt général. Mhm. mais bu fekkee ni kenn ku nekk yow bu pôle urbain bi ñëwee yaa ngi xool loo ci mën a am. ñëpp perte wala ngay kii ak yooyu finalement ñëppay ñàkk. Mhm. Mhm. Euh, dañuy taxaw tuuti ci li nga xamante ni mooy pôle urbain bu Lac Rose parce que yow it euh, mën nañ ni da nga cee bokk ndax lu mel ni waaye fi la bokk te yow ban gis-gis nga am ci pôle urbain bu Lac Rose. pôle urbain bi bi mu bi Macky Sall defaree décret bi en 2016 dagg. mais donc 20, presque 24 km carré dagg géej gi ñëw ba ñag mu jadd jël waaye mbaam yëpp continuer jaaraat ay kii ak manam dafa jël affaire bu teg si loxoom. Mhm. bon du lu bon en soi bu fekkee ni ñoom euh, parce que xam nga euh, gars yi euh, dañuy jaxase affaire yu bari xam nga Macky Sall président président la du yàlla du yonent ba du dara président kese la donc day mën na am benn xalaat xalaatam boobu mu ne non nëgal ma defe ko ak ni ak ni pour li. Mhm. xalaat bi di wàcc ñëw ba ci suuf changer parce que il faut pas croire que Macky Sall lu mu wax rek nit ñi def ko dé surtout ñi mu andal non Macky Sall mën na ñëw né damay defar Lac Rose waa ji nga xam ni moom la fi gën a yaakaar ñëw ne wax dëkk bi la Macky Sall nee na da leen di defar xam nga y différence mhm. parce que ay politiciens lañu mhm. te moom aussi puisque nit ñi xamee nañ ko politicien gars yi dañuy jàpp ne lu mu wax rek xam nga xëy na politique la politique puisque ay politiciens lay àndal politiciens yooyu ñoo ñoo ñëw di wax ak population bi dañuy jàpp ne kon Macky Sall moom moo wax lii moo tax ba mu waxee affaire pôle urbain bi man dama dem xool lan le ëmb. Mhm. Seydou Sissal moom moo fa nekk. Mhm. lan la pôle urbain bi ëmb. li wax nous ñu koy c'est public ñu ngi koy wax ci kii bi nii boo ko laajtee pay ak ñoom ñëpp man dem pôle urbain ba di fa lijjanti lan objectif pôle bi ak naka la demee ak yooyu yëpp noonu pôle urbain. ba ma xamee aussi la nga ne ñoom lañ fi bëgg indi man ñi waxal dama gouvernement bi boo xoolee ay dëkk yoo xam ni comme Wayembaam. Mbéy mhm. ak euh, dëkk yu dëkk yooyu nga xam ni presque benn infrastructure amu fa nit ñi nan lañu war a organiser parce que état li mu xam mooy ko organiser. Mhm. tey jii nii bu état bi di ñëw ne nooy defar pôle urbain du Lac Rose yow boo bëggee wax ak bëgg a wax ak moom xam nga nooy wax ak moom da ngay defar sa projet bu dëgër bu baax a baax a baax boo xam ni moom bu ko gisee. Mhm. danaan ah.

ñaata kii laa fi ñëw tegal leen ne leen affaire bi ne leen ko defee nii ak nii ainsi de suite boo laajtee directeur de la promotion touristique bi fi nekkoon am di ngom ak yooyu yëpp noonu comme de fois la ñu ma recevoir seen ay bureau ci ay projet inclusif yoo xam ne dafay bokk ci kii mais bu fekkee ni yaa ngi koy wax nit ñi nga xam ne ñoom la concerné mu mel ni yow dafa xam ben am benn intérêt nga ci am particulier mhm. aw ma ci benn intérêt mhm. man dama xool rek xam ne lii moom mooy su kii ñu ko siy def donc état ni ngay doxaleeg moom moom mooy lan moom mooy bu ñëwee di ñëw nga xam ne état ngi ñëw comme pôle urbain bi nee na fii la commencé fii la lii fii la lële ngeen organiser wu yéen. Mhm. parce que yéen a fi dëkk. ne bon écoute ñun kat fii lii moo ñu fi arrangé ak lii ak lii ak lii tey ëllëg tamit danañu soxla lee ak lee ak lee ak lële léegi puisque fii zone bii zone des Niayes la xam nga bëgg nañ fi lycée technique agricole. Mhm. bëgg nañ fi lii ak lii ainsi de bëgg nañ fi def di defar seen ay projet ba mu normal bëgg na bëgg nañ benn tali boo xam ni dafay génn fii aw fee yóbbu lii defar ki nga defar sa projet ba état buy ñëw fekk la bu la waxee rek nga génn li nga yore sa loxo mais bu état bu la fekkee yoroo dara sa loxo mhm. li mu indi lay def mhm. li mu indi kese lay def donc loolu mooy problème mu pôle urbain mais est-ce que du loolu aussi suñu autorité locale yi ñoom ñoo ci waroon ànd ak population bi parce que boy xol lu melni pôle urbain de la grosse autorité locale yi dafa melni ñom dañ leen ci dañ leen ci génne parce que boy xol tay population bi ñi ngi naan ñom amuñu ben information ci li nga xamni moy pôle urbain de la grosse té autorité locale yi ñom ñoo fi nekkal président Macky Sall. Wa, justement xam nga loolu moom mooy problème bi. Mhm. xam nga bu fekkee ni xam nga développement ay enjeu la. Mhm. loolu moo tax par exemple ni autorité locale ñan la ay maire ak ay affaires yooyu noonu. Mhm. mais est-ce que maire bi maire n'importe quel maire sax lay wax au Sénégal moom bi muy ñëw di nekk maire dafa amoon projet de développement boo xam ne daf ko waroon a teg population yi ne projet bii de la maire bi teg dañ ciy ànd ak moom ci projet bi est-ce que noonu lañ lay élire maire yi. Mm-hmm. c'est ça aussi le problème est-ce que maire bi biñ koy biñ koy tabb dañ ko tabb ndax dafa indi projet boo xam ni day waxuma la tey mais suba ak ginnaaw suba sax dina indi ci dëkk bi naataange wala dina changer ci dëkk bi nga kon au lieu nga naan maire mhm. ne li muy def ci est-ce que non? la ñuy élire maire yi fii loolu moom mooy wax bi. Mhm. ndax ndax autorités locales yi dañ c'est sur la base d'un projet. Mhm. bon l'homme moo tax nag boo répondre ci question boobu kenn ku nekk sa maire ba xool maire boobu bi muy ñëw moom lan la fi indi woon comme projet. Mhm. di nga mën a tontu ci question boobu. Mhm. donc maire boo xam ni yow buñ la fi indee wala ak koo mënti doon yaa ngi yore loo xam ni yow fa ñuy waxe sax doo ko yëg. Mhm. man damay dem pôle urbain ba tout le temps mais man à chaque fois ma dégg fa kii yu demee naan non seen maire du ñëwoon na fi fii doon toppatoo lii wala lii benn affaire boo xam ne institut xam nga. mais il se trouve que état. du état moom mooy développer dëkk. Mhm. état du joxe liggéey ci dëkk. du mhm. joxe lu ñuy naan du joxe kii développeurs yi ñi nga xam ne ñooy développer entrepreneurs yi. Mhm. ñoom ñooy ñëw teg bagages yi état bi organiser ko état pour organiser la. mais tey jii nii am na yu bari fii yoo xam ne sax boo ko fi bëggee def fii autorités locale yi ñu lay indil problème.

boo fa demee dañ lay tegal li nga xam ne yëpp moom lañ fi war a def ña nga ak seen ay maquette ña nga sa ay kii seen ay kii di dagg ña ngay def liñ li nga xam ni moom mooy seen mission. Mm-hmm. boo fa demul doo ko xam. Mm-hmm. ok euh, parfois ñu dégg la ci ci ci ci ci sa page Facebook itam ngay ñëw ci problème mu euh, réew mi. des fois ñu gis la nga defar ay articles yoo xam ni di kaas ci yu baree baree bare situation réew mi tey ni mu demee nii euh, naka nga ko gisee. waaw xam nga Sénégal ci dëkk yi gën a compliqué la bokk. Mhm. cest à bu fekkee ni un peu xam nga ni économie di doxe ci àdduna bi yépp Sénégal moom mu ngi noonu cest à wax dëgg yàlla benn kaala boo xam ne. Euh, dëkk bu euh, kaa kaala quoi. Mhm. parce que benn affaire xam nga tey euh, man dama man suma problème moom moom mooy dama koy wax di ko bind moo tax sax ma jël suma journal yóbbu ko ci Facebook noonu di ci wax ci loolu moom mooy gis nga gis nga àdduna bi bi mu sosoo ba tey jii boo gisee tey ñu histoire bu gën a récente rek esclavage am.

parce que tey boo xoolee Sénégal man yàlla ci loolu laay wax ne sànq ne yàlla dafa ma dimbali boo xoolee Sénégal dëkk bi ni mu mel ñetti grand fleuve majeur ñoo aw ci digg ci kaw ba pare nag bien réparti ci kaw a kaw fleuve mhm. Sénégal ci digg bi fleuve Gambie ci suuf fleuve Casamance rivière yi nag kenn xamul nu mu toll donc kenn mënu fee jaay ndox mhm. jooy jooy waxu ndox bu fekkee da jóge tey dakaar di dem ba Bakel yoon bi yëpp danga koy topp amul benn suuf boo xam ne suuf bu bon la suuf yëpp a baax loo fa def bu suuf bu nangul li nangu na lële nangu na lii wala kii xam nga nga jóge Bakel ñëw yéeg Tamba dem ba Ziguinchor da ngay gis ne àll beek yëpp kenn laalu ci dara maanaam. Mhm. Sénégal liggéeyuñu. Mhm. dañu liggéeyu man tey Pape boo ma joxoon réew mi. mën naa la ni dans un an ku ma gis nga taxaw ci mbedd mi di waxtaan ma jëf jëflante ko ak yéen